salaamaaleykum euh, axlu lamb ñu ngi nuyu ñëpp ñi teew ci tournoi bi ak ñuy sétane ci à travers seen site euh, ñëwoon juste tey pour def touti éclairage comme point de presse lañ ko mën a tuddee mais ci loo xam ne dafa jëm ci tournoi bi nga xam ne moom la ñu organisé woon tournoi bi nag li ko taxoon a jóg foog naa ñëpp comprendre nañ ko mooy regroupé ak askanu lamb parce que muy mbër yi muy muy arbitre bi

Pout noonu Diamaguène euh, noonu Parcelles noonu ba ñu mot 18 équipes ñu néew nag football ko ci fair play ba fi ñu toll nii dem nañ ba toll ci final final bi war a opposé arbitre yi ak waa Petite Côte ba léegi nag lépp rafet na xëy na weddi nañ ñi nga xam ne ñu ngi doon naan mbër yi da leen di luyeel restaurant bu classe ñu xeex fa ba yàqu ko dajaloo nañ ci terrain boo xam ne moo gën a yaatu ñu nekk équipe bokkoo te benn coow jógul vraiment ñu koy remercier ñëpp ci sportivité bi amul vaincu ñëpp a gagné parce que li tax ñëpp gagné mooy am na loo xam ne juddu ne ci diggante bi am naa ne am na ci tournoi bi au sortir du tournoi loo xam ne face à face mënatul tax mu ñaaw seen diggante donte buñ dajee ci géew dinañu bëre mais animosité lu bëri à partir du tournoi gis nañ ne dañ na ñu ciy woo autorité yëpp ñu jàppale ñu ci final bi nag moo ci des nekk le 30 le 30 comme niñ ko waxé won CNG dañ né won dañuy commencer tournoi bi ta saison bi di ubi mu jeex comme ça mbeur yépp mëna wu ci seen combat motax samedi le 30 inshallah allah wo askanu lamb képp ko xamné ne amateur la képp ko xamné ne promoteur la képp ko xamné ne soxal na la ñu ngi di wo ci stade bi nek Grand Yoff euh, Bab Bakayoko mo nek wetu école Mariama bi fofu lañuy ñuy final bi muy samedi le 30 diganté Petite Côte ak reporter yi laata final bi di tambali nak day am match d'ouverture bo xamné dañ koy def match de gala entre promoteur yi ak reporter yi promoteur yi ay mag lañ ay bailleur lañ di génnee séni fonds di teug mbeuri buñ nango bok ci tournoi bi ñëw aussi nango football match d'ouverture bi ñoo ko reporter yi nga xamné ñoy lepp luñuy def ñom ñokoy wasaré vraiment da fay nek fête de la lutte lay doon Euh, parrain bi nag mooy Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr nangu na ko biñ ko doxee nangu na nekk parrain euh, bu première édition bi nga xam ne ñu ngi koy def muy tournoi de la fraternité tournoi des arènes nga xam ne football moo ñu nara boole ñu ciy woo képp kuy autorité Grand Yoff bi nga xam ne mooy accueillir ci tournoi finale bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr lañ ko jagleel ñu ciy woo autorité yëpp autorité mbuur Mbour baaruñ kenn xam naa dina bàyyi kaddu gi ñi nga xam ne ñoo teewal Mbour ñi nga xam ne ñoom bulldozer yëpp ñu ngi fi ñoom waa Malika la euh, Cheikh ñaa parcelle mu ngi fi ñoom soq ñëpp a ngi ci biir donc organisation bi ma limee rek du ma matal mais daal euh, dem leen di jox kàddu bi juste ñu lancer ay appel pour que final bi samedi le 30 inshallah askanu lamb yëpp daje foofu foofu euh, stade Bakayoko bi nekk Grand Yoff voilà xaw ma ci kan laa njëkkee Tigre bi mag mën naa la ah wala Touba bon sponsor bi aussi bala ñu koy wax dëgg yàlla jàppaluñ ñu bu baax a baax muy ETDR Kandji Kandji production di ETDR ah moom jàpp na ci tournoi bi bu baax a baax naka la ci jàppee équipe yu bari dañ doon ñëw du ñu am mayo moom mu confectionné leen mën naa ci lim lu mot juróomi équipe yoo xam ne Kandji production ETDR bi nga xam ne Kandji moo ko jiite moo dugal loxoom ci poosam jëndal leen mayo vraiment jàpp na ci tournoi bi ñu ngi koy woo aussi ci final bi vraiment euh, ñu ñëw Jamil Nourou la aussi ñu ngi ko ciy woo di wa kunum ku nu buas, sax borom boisson yi nu tudati Catalina ñu ko ci wo ñom ñep ñu leen kep ko xamni ne lamb daf la soxal tournoi bi utun ci utun ci tour mais na réussir ñep daje fraterniser mu am un gagnant won ñu waajaat ko comme ça mu gëna neex li dal la bëggoon lancer jox cadeau bi euh bu amé lu mu sani wat tigre bu somone wa wala bulldozer. Hmm. waaw asalaamaaleykum fi Malick daanale rek laay tàmbalee mooy loolu ndax tournoi bi dañ fi ñëwoon pour fair play ñëwoon teewal fi Mbour Petite Côte di wax ne yàlla def na ñu dem final ah euh, arbitre di lancer benn message rek di wax ne ñun sport moo ñu ñor te sport bi amuñu si lu dul euh, fair play parce que sport moom dafa war a boole waaye warta xàjjale comme yàlla def na nag ñu dugg ci sport bi Malick wax na fi kàddu yu am solo yoo xamante ni am na connessance yu fi jóge yoo xam yu fi génn yoo xamante ni euh, yaakaar nañ ne dootul yàqu ba mukk euh, làmba man leen la boole mais connaissance bi gëm nañ ne dina des te loolu rek nañ si jublu woon di wax ne daal autorités yi ñun amuñu lu dul autorités yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal autorités yi nga xamante ni ñoo nekk euh, Mbour Petite Côte ñu ñëw jàppale ñu te xam ne ñun aussi ñoom nañ fi euh, teewal bon di wax ne daal affaire yi rafet na daal kontaan nañu xanaa jox Sélé wala Touba rek ñu lancer message ci autorité yi euh, ñu jàppale ñu daal ci final bi. Sélé woo yi ñu jàppale bu comme Lion moom daanaka wax na lépp mhm. surtout dañuy veiller rek ci côté autorité yi. Mhm. waaw ah, ku ci mel ni eh, maire Kammange Koox muy Pape Diouf maire Somone Guéréw eh, waa Ndayane bàyyiwuñu kenn parce que Petite code la Saly ah waa Mbour Cheikh Issa ñu ngi lay woo waa di woo tamit eh, DG muy Maguette seen mu ñëw jàpp si tournoi bi nag sax laay wax bu baax parce que mooy sunu DG mooy sunu titre si Petite code bi waaw ñu ngi koy ñaanal tamit euh, bu baax mu gën a avancé dem ba doon président mais daal na ñëw jàpp ci tournoi bi parce que tamit comme ni ko gars yi waxee rek sport moom euh, day boole mais du xaajale wax dëgg si affaire bi commencé nañ ko ci fair play wax dëgg si yàlla yan na jeexe tamit ci fair play te xam naa sax si lay jeexee ndaxte defe naa li ñu fi def yëpp maanaam lu rafet la maa Malick nag yow dañ lay sant bu baax di la gërëm parce que kiy boole ay nit. ay maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa Petit bi yëpp. di encourager ñi nga xamante ni ñoom lañ doon footballal muy waa jàmm gën di encourager équipe yi bokkoon yëpp te demuñu final mooy loolu melida mais hamga. rafet na xam nga kon comme que yàlla yóbbu nañu ba final ñu ni neen la suñ biir te mbër moom mënul dem sans autorité mënul dem sans euh, nuñ koy waxte amateur mënul dem sans journaliste mënul dem sans promoteur kon ya naa ñoo ngi siy woo si bis bi di wa woo waa Petite bi yëpp tamit rawatina suñu waa campement Ngexoox waa ngi Ngexo sport ñoo ngi leen si woo bu baax a baax a baax di si woo monsieur le maire Pape di fi woo ñoom Alla Fall xam nga di woo maam Xaali Sarr sama doom baay ni ko mu jàppaat si parce que jàppoon na si bu baax a baax di woo waa garage benn waa garage kalandoo waa garage car bàyyiwuñ kenn daal xam nga di wax ni doomu Petit Côte bi ñoo dem final kon ñoo ngi si woo ñëpp autorité yëpp ñoo ngi leen si woo nag xam nga comme que lim nañ bu ñëwee Petit rek jeexal na di si woo waa région de Thiès yëpp tamit mooy loolu noonu di la wax Malick ñoo ngi lay ñaanal jàmm ak sutura lii rafet na trop trop trop barki Seydina Mohamed ndaxte saison bi da tëj ñu nekk si leneen ak leneen tey ñoo ngi fii ñëw nañ compétition lañ fi ñëwoon di football am nañ suñ koofur am nañ si ay xamel yeneen ak yeneen am na ñu nga xamante ni man ba may nekkee si làmb ba léegi mosuñoo tegante bët fii lañ amee chance di nuyoon teg affaire yooyu noonu kon lii rafet na daal ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant yàlla bu baax a baax a baax nag di ñaan yàlla final bi yàlla nañ ko jël tamit seen si seen kaw yéen arbitre yi mooy loolu noonu incha allah jaajëf jaajëf waay jaajëf waay. jërëjëf. Tigre <laughs> tigir cawa tigir jàlle na de kuy ñëw ah cheikh cawa salaamaaleykum aousubillahi mina sheytaani rajim ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di nuyu journaliste yi fi teew ak mbër yi fi teew ak amateur lamb ak ñëpp ah di wax ne final bi dañoo bëgg na ko ñëpp wàcc ahlu lamb ñëpp ahlu lamb ñëpp invité nañ ñëpp lu ci mel président du Diagne Diécko ñu ngi invité mm-hmm. président Gora mm-hmm. waaw ak groupe WhatsApp yi nag mm-hmm. Guru WhatsApp bi sommes tous ñu ngi a production production 100 garçon, ñu ngi de fête quoi comme mag dem peut-être euh, bi parce que bu dee woon man rek rek mënul sotti mais ñoom ñëpp ci jàpp ku nekk def ko affaire boppam ci groupe WhatsApp lañ commencé di waxtaane affaire yi ñu koy togg ba mu yegg si fii mais ñu jàpp ne final bi trophée Abdoulaye Diouf saar la trophée Abdoulaye Diouf saar wa nangu na ko ñu ko ciy remercier bu baax a baax a baax parce que moo Dia bu yoof bi mu waxtaanee ak ñoom rek. aussitôt après lañ ko accepté donc loolu mu nekk loo xam vraiment su ko neexoon mu ne yoonam nekku ci mais daf accepté ak philosophie comprendre sens bi tax ñu ñëw ñu koy ñaanal moo xam bëgg na ko yàlla defal li ci tegu mooy ñuy woo monde lamb yëpp monde lamb yëpp maire Dieynaba Ndiaye bu Kër éviter d'honneur le ci final parce que mon vraiment gis nañ ni mu taxawoo mbëru Kër Massar yi te lépp lu yëngatoo ci lam doomam mu ngi football vie mais terewul kudul dul doomam sax moom day yëkkati dooleem di ko jàppale moo tax jour boobu def nañ ko invité d'honneur bàyyi ñu